mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna maa ngi wuyu ci turu Mansour Mbaye di étudiant ci daara ju kawe ji di université Alioune Diop de Bambey ñi sama ginnaaw di samay naataango ñoom ñëpp di ay délégué maanaam ndaw étudiants yi bërëb gi nga gis suñu ginnaaw di suñu dëkkuwaay mu am suñuy dëkkuwaay ak suñuy restaurant suñu njiit daal di tëj ko ci lu tegul ci yoon ñu waroon jàngi si muy suñu droit bi nga xamante ni kat ñoo ko moom suñu bopp waaye ay weer a ngi nii mënuñu sax dugg ci campus bi mënuñu si dugg mënuñu si restauré wu mu nekk lu metti tey ñu bëri si yéen suñuy yaay ak suñuy wayjur nan lu tax suñuy doom jàngiñu ba tey yaay yéen suñuy yaay bàyyi yéen suñuy bàyyi ñu leen xamal du leen du dul suñu autorités yi nga xamante ni à savoir Moustapha Guèye ak état bi dañoo décidé ni carrément ñun kat duñu dugg suñuy campus duñu dugg suñuy restaurant njàng bi waroon dooraat depuis le 9 bi ñu weesu boobu ba tey yéeyu ñu yàbbiwuñu si li nga xamante ni mooy situation bi ñu ko ngir ay politique ñuy lancer un appel solennel à ñi nga xamante ne mooy yéen ak kilifa yi ngir kat ñu wax ci lu mel di naqaru li nga xamante ni moo xew fële ca Dakar suñu morom étudiant yi nga xamante ni dañ doon revendiquer di xeex seeni droit ñu jàpp leen dóor leen li nga xam moo xew fële ca Ourossogui ak fépp ci Sénégal di wax ni carrément ñun ak ñoom ñoo bokk xeex bi ndax xeexu xeex bu noble la ci fan yi di ñëw incha allah dinañ tegal ay programme ak ay euh, plan d'action yu leer incha allah dinañ seeti ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi ndax itam xam nañu réew loo xamante ne ñun dañu am ay kilifa te dañ leen seeti incha allahu rabbi ngir kan ñu jëm ci waxtaan jublu juguñu ci waxtaan ndax ci waxtaan lañ mës a nekk ak ñi nga xam mooy suñu kilifa à chaque fois ci lañ nekk mais booy waxtaan ak ñoo xamante ne gi la dañuy dem xooli seen i kilifa incha allah dañu amal ay manifestation comme ni ko sama naataango yu waxee léegi-léegi incha allah bu jotee dañ xam lu bëri bëri